أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yenantu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi ba tey noo ngi ànd ak yéen ci téere yàlla bi subhanahu wa taala ba tey nu toll ci suratu nisa ñuy jël tey aaye 128 mu nekk benn aaya bu nu sunu borom subhanahu wa taala di jàngal di yoonal ci ñun istihbaab as-sulh bayna az-zawjayni inda ta'azzur al-baqa ma ba'dihima illa bihi aaye bi nekk sunu kanam sunu borom daf ñu ciy jàngal ay atte yoo xam ne dafay aju ci sunu dund diggante ñaari way dencante góor ak jigéen borom kër ak soxnaam ñoom ñaar léeg-léeg ñu dund dund koo xam ne kenn ci ñoom dana bëgg a génn ci sëy bi ndax xëy na da dul neex wala lam doon yëg ci mbëggeel ak yërmande mu sentir ne loolu nekkatu fi wala ku góor ki yëg ne kii ma doon sëyal te kat amatul doole pour ma nekk ak moom wala amatul wér wala amatul cawarte wala dafa màgget su boobaa sunu borom subhanahu wa taala borom yërmande ju yaatu ji borom gënal yi dul jeex am na condition yu mu teg yu mu sart diggante ñaari way dencante yooyu ñu waxtaane ko def ko waxtaanu biir néeg suñ ko defee rek sunu borom nee na yéwénal day am moo tax ñu ne sopp nañ bëgg nañ as sulh sulhu mooy lan mooy yéwénal waxtaan bayna zawjayni diggante ñaari way dencante yi ku góor ak ku jigéen ki suñ demee ba jafe-jafe am nekk di nekk nekk bi métti su boobaa nag dara des bi dul foog ñu négocier foog ñu yoonal tey bokk jullit yi danañ jàng ci sunuy àtte ci sunu diine li nu sunu borom subhanahu wa taala yoonal am na benn àtte bu ñuy jàng tey mooy la borom xam-xam yi di wax ci olof fay fay kan moo koy def jigéen ah ñoom yaa ñëpp a koy def de doo gis góor gu fay mer rek gàddu sa mer gàddu defar am na de loolu ñu naan nusuuz dañ jàng aaye boobu tey léeg-léeg nit ñi yaakaar na jigéen rek kay fay te góor dina fay góor dina am këram am soxnaam am ay njaboot nekk ci kër gi ba ci yàgg dootul sentir boppam ci kër gi diggante doom yi wala yaay ji wala wala wala wala mu xat léeg-léeg moom soxna soosu wala góor googu mu daal di jëlay bagage am dem yoonam daay bàyyi kër gi ak waa kër gi ku góor googu lim def lan la tudd ku góor googu lim def nu mu tudd bu doon jigéen la toog ba caag mu daal di génn kër gi dem lu ngeen di tuddee lim def fay fay boobu dañ koy araafi di wax an nusuz fi luga ci làkku arab dafa am ay maanaa yu bare bare bare ci làkku arab yéen ñi jàng arab baadul ahyaan alkalimatu fassir irtafaa mooy yëkkatiku wa huwa maaxuuzun min annashr bi fathi shin wa sukuniha wa yutlaq aydan ala martafaa anil waadi léeg-léeg borom xam-xam yi firi ko encore xur wu yëkkatiku la yëkkatiku ca xur ba ñu tudde ko baat boobu di baatu nusuuz ala martafaa anil waadi ila al ard moo tax baat bi ci firi ko ci lugatul arab yi ci làkku arab mu yor ay maanaa yu bare bare bare bare bare bari yu ko boroom xam-xam yi firi di nga fekk yenn saa yi ñu ne al irtifaa mooy yëkkatiku waaw waaw ñun ñaar ñooy ànd su kenn ci ñun yëkkatikoo rek problème day am ku jigéen ki mooy ànd ak ku góor ki mu jékki-jékki di ngand ngand lu ci kaw ku góor ki luy xew ku góor ki mooy ànd ak ku jigéen ki mu jékki-jékki di ngand ngand lu moom tamit man ñu tuddee ko al irtifa wa qila aydan asluhu al inizaj am na ñu ko firee problème ñooñu tamit wax nañ dëgg ndax ñaar ñuy ànd suñ demee yenn saay ba jafe-jafe am rek mooy mbir am na ibnu daawud mu ne moom bi muy firi baatu fay moom nee na li muy tekki mooy nasratul mar'a fayu jigéen moom mooy mu génn këram bi mu doon sëyee mu dellu kër gi mu jóge woon nee na loolu fay la wax na dëgg ñun sax fii ci olof lool lañu xam pourtant jigéen dina fay mais mu ngi ci biir kër gi toog ñun saa yoo déggee jigéen fay na rek lu ñuy dégg ci baat bi mooy ndaw si dem na non mun na ne ci biir kër gi bu guddee mu fanaan ci saal bi wala mu fanaan ci suuf wala mu fanaan ci ëtt bi instant boobu dafa fay fay nekkul rek génn ci biir kër gi ngay see dem beneen kër góor dina ko def jigéen dina ko def moo tax ñu ne dafa am ay maana iddat maana yu bare bare bari moom baatu nusuus bi yàlla di ñu jàngal tey ci suratu nisa mu nekk sunu dars tey tafsir wax nañ sànq baat bi dina fi dina firi al istila mooy di kawe kawelu wa taali ak yëkkatiku wal irtifa ak jóg waaye am na fu muy firi al isyaan mooy mooy mooy ndigal ku góor ki ku jigéen ki dafa mooy ndigalu kilifaam mooy kilifaam gi nekkoon ci kër gi nekk borom këram su ko waxee dootul dégg su ko nee toogal du toog bu ko nee bul génn du génn bu ko nee noppil du noppi moo tax yenn borom xam-xam yi firee ko al isyaan mooy mooy ndigal wa minha al imtina am na ñu ko tere bañ ah kii de léegi daa bañ ndigal jëkkëram lu ko jëkkër ji wax du ko dégg kon ñooñu tamit wax nañ dëgg am na ñu ko tekkee al xuruj ani taa mooy lànk ñàkk déggal ki nga déggaloon koo xam ne moo la fi indi woon nga déggal ko lool mujj ngeen dem ba ci àgg su la ne suba kaa ña laa toog laa bëgg nga togg dëxin waaye lii nag lii da laa mën boo bëggee lekk nga lekk boo mu yaa xam waaw léegi déggalatu la sama yére bee laa bëgg nga fóot mu dem fóot beneen bi wala mu bañ ko fóot nga wax mu ne la mënuma ko bul dem mu ne la damay dem de dara nga ci mënul loolu tamit am na ñu ko firee noonu wa tamarrud baatu nusuus am na ñu ko firee féetéerlu gis ngeen te baat yi ñu ci wax yëpp da ngay gis ne dëgg la mu ngi ci biir sëy bi léeg-léeg jigéen féetéerlu baatu féetéerlu mooy lan ah boobu sax nag moo gën a metti bañ féetéerlu moom mooy su la neexee bu la naqaree su eggee foofu nag am nga problème wa taaddi ak jalgati baat boobu ne walaat wa man yataadda hududullah mooy jéggi dayo fii nga waroon yem nga jalgati am na ñu ko firee noonu wal aza am na ñu ko firee lor wal kiraahiya am na ñu ko firee sip wal buxdu bon wal muxaalafa wuute wal xilaaf mooy wuute bi wa tark am na ñu ko firee bàyyi wal isaa am na ñu ko firee ñaawal wa tajaafi wow koŋ kon baat bi mbokk yi daanaka dem na ñaar fukki firi benn baat boobu dong mooy an nusuuz mooy fayu jigéen buñ ñëwee ci loolu luxa la woon buñ ñëwee ci an nusuuz istilaahan ci sharia lan mooy fay ñu ne yakunu min al mar'a wa qad yakunu min al rajul waaw yenn saa yi mu nekk ci jigéen yenn saa yi mu nekk ci góor jigéen day fay mais am na góor ñuy fayan am na fi paa yoo xam ne boo waxee rek ñu gàddu seen bagage dem feneen waaw toog foofu ñoom jàpp seen jàmbur ñoom tamit am na fi jigéen ñoo xam ne tamit boo waxee rek ñu gàddu seen i bagage dem doo leen fekkaat mu booy xëy doo leen fa fekkaat wa qad yad'ihi kullun minhuma an ala saahibihi kenn ku nekk ci ñoom sax yenn saa yi nga dem kalaame ji dem ci papa yi ndaw si ne quoi maam moom ñu ngi ci kër gi de waaye day daanaka ñeenti weer a ngi nii du wax ma wax wala ñeenti weer a ngi nii bokkuñu lal bi yenn saa yi góor dem kalaame yi jigéen yenn saa yi tamit jigéen dem kon baatu fay ci isla ci sharia jigéen daf koy def góor daf koy def te loolu yëpp yéen tëg ngeen ci bët lihaada arrafahu lfuqaha loolu moo tax ñiy jàngale fiqhu lislaam ñu xamale ko ñu ne moom bi maanaahul am boo ko doon firi lépp maanaa bi wa bi kawnihi min janibi almar'a awi rajul ala nahwi taali léeg-léeg mu nekk ci góor léeg-léeg mu nekk ci jigéen waaye ci comme nii ñaata ngir ngeen xam instant yi ñu toll yu gën a siiw ci àddina bi ñaata ngir la ñeenti ngir ngir gu njëkk gi mooy ban ngir ngir gu njëkk gi ngeen xam moo xam ne moom moo jiitu ci ngir yi mooy ah déedéet ah xanafiya abu xanifa ngirum xanafiya nee nañ an nusuus bi maanaahu umuman bi qawlihim huwa karahiya karahiyatul kullun minhuma li saahibihi ñoom loolu nañ ko firee ñu ne baatu fay ci ñaar ñëpp la nekk ci ku góor ki ak ku jigéen ki lu tax kenn ku nekk ci ñoom da ngaa am looy bañ ci sa moroom ndaw si lii la bëgg waa ji bañ waa ji lii la bëgg ndaw si bañ ba tax ñoom ñaar ku nekk nekk jël position kii taxaw fii kii taxaw fii ba tax ñoom ñaar mënatuñ juboo ci kër gi ñooñu noonu lañ ko firee mooy ngirum abu xanafiya loolu ñoom la ñuy wax alxanafiya wa arrafahu almalikiya ngirum malik daa di ñëw ñu ne an yataadda kullu wahidin min azawjayni ala saahibihi kenn ku nekk ci ku góor ko ak jigéen gi da ngaa jalgati ci sa moroom dafa am ay àq yu sa moroom mu yoroon yéen ñaar ngeen ànd di ci dogoo benn bis rek ku nekk jalgati ko àq yooyu ñooñu noonu la ñuy firee baatu an nusuz mooy malikiya kenn ku nekk da ngaa jalgati ku góor ki wala ku jigéen ki da ngaa jalgati sa aqu moroom a shafiiya ñu ne ngirum shafii ñoo ci tegu ñu ne huwa muxaalafatu kullun minhuma sahibuhu ñam ñaar ku góor keeg ku jigéen ki ku nekk da ngaa wuuteeg sa moroom gis nga lii ñu wax yépp mbokk yi day yàq sëy li ñuy wax sànq ci firi baatu fay li muy tekki mooy day yàq sëy ñu mujj ñi mooy alxanabila mu ngirum imam ahmad ñoom ñu ne an nusuuz fay wa kirahiyatu kullu wahidin min azawjayni saahibuhu wa su ishratihi ñoom yemuñu rek wax ci ne ñoom ñaar ñi dañoo wuute déggootuñu ci kër gi waaye léegi dund bi ñu doon dund sax ku nekk da koy jalgati bëggatuñoo dund ñoom ñaar dund bu neex waaw ñoom ñaar kenn ku nekk daan kii lu day dof dof wóor na yàlla dinaa ko yar bam ne cocc bu ma bu xëyee lekkatul bu xëyee ndékkeetul kii ne kii dee dof dof lu bàyyi leen maa ngi moom dinaa ko yar ba bu gis tey jigéen dina ko dina ko respecté waaw léegi nag xool leen affaire boobu nu mu grave kenn ku nekk léegi di tëkku sa morom ci biir kër gi sëy boobu fu mu jëm mooy ci tas la jëm kenn mënu ci dara léegi nag sunu borom jalla jalaaluhu ndeysaan borom mbaax gi borom màgg gi moom bëggul sëy bu tas sunu borom bëggul sëy bu tas looloo tax ci lépp am na lum am na lum nu sant sunu jaaree ci sunu yoonu yoon yi nga xam ne moom la nu yàlla subhanahu wa taala sant du nu wax ne jafe-jafe du am déedéet du nu wax jafe-jafe du am waaye du bari bu kenn si ñun ne damay sëy sëy bi du am jafe-jafe abadan maadaama anta insaan doomu adama dong nga motoo ba pare ñu joxaat la encore ku matu kon foog problème waaye dañoo bëgg problème boobu nu mu mun a mel kenn ku nekk na ci sàmmonti ak ay àq xam ngeen tey ñun jullit yi problème yi gën a rëy yi ñu am sëy ci la bokk lan moo waral loolu mooy dañuy dañuy dañoo nekk ay jullit mais xamuñu islaam nu mu jàngalee sëy pourtant ay jullit lañ de pourtant ñun ñëpp xam nañ ne yàlla santaane sëy bu ñuy takk sax jabar ci jàkka ja la ñuy dem imaam xutba ci sarti islam lañ koy takkee ci sarti islam lañ la koy mayee waaye après foofu la ci lislaam yam ndaw si day ñëw ci kër gi du xam nu muy sëyee ku góor ki nga xam ne moom mooy ndey mbilli gi nga xam ne moom mooy baay ci kër gi xamul yan àq la soxnaam am xamul nan la ñuy yoree kër bu moom jàpp na joxe dépasse la bu ñu feebaree nga faj leen bu ñu xiifee nga jox leen ñu lekk jeex na man maa lu ma neex benn tubéy la maa koy sol loolu la paayi wax fii tubéy benn la fi maa koy sol waaw maa lu ma neex moo fi am ah tey ci suba rek maa ngi am benn problème sama école benn femme bu dem génne doomam ci beneen école indi ko ci sunu école inscrire ko ñu toog 30 minutes paa bi ñëw daan ne fii lañ indi jiw ñu ne ko waaw mu ne dañ ko fi indi te tàgguwuma kon nag dañ koy génne parce que sama doom la maa ko jur lu ma neex laa ciy def gis nga problème boobu waaw gis nga ñaar ñooñu mu leer la ne seen kër neexul parce que bu seen kër neexoon duñu topp seen doom di ko xëccoo ba école kii naan lii lay def kii naan lii lay def kon mbokk jullit yi bu ñu xoolee inda nazr fi haase taaruf suñu xoolee nii borom xam-xam yi firee fay yattadihu annaha mutaqaariba dañuy gis ne ñun ñëpp ñoom ñëpp niñ ko firee dafa jegante benn yëpp problème la ci biir sëy wa tadullu ala anna nusuus yakunu min kila zawjayni kon day wane ne baatu fay ñoom ñaar ñëpp la ku góor ki ak ku jigéen ki la bu ñu jàpp jigéen ñi rek di leen tuumaal ne ñooy indi problème ci kër yi ndax ñooy fay ñoom ñaar ñëpp la sawaun kaana bil isyaan aw bil karahiya yenn saa yi mu nekk ci moy yenn saa yi mu nekk ci baatu mbañeel yëpp def ciy nekk aw bi muxaalafa aw bi nufuur yëpp day am jigéen day jékki-jékki rek sip borom këram bañ ko complet complètement góor tamit yenn saa yi day jékki-jékki bañ soxna si complètement du ko sax bëgg tegati bët loolu lépp nag li koy waral mooy ay jikko ak ay melokaan ay comportement yi ñuy nekk ak sunuy soxna ci biir kër yi soxna yi di ko mel mais yenn saa yi tamit ñun ñu koy mel kenn du rectifier boppam ku nekk di jaay affaire ba mbir mi mujj ëpp ëpp nag waaw wolof yi dañuy wax ne tubaab yi dañuy jàngale ñu ne bépp phénomène catastrophe boo gis am na am na benn cause négligence bu bu bu bu bu ko sos bu dee oto da ngay am oto nga xëy suba gis benn vis buy bu bu- bu deñ wala mais oto baa ngi daw wala kenn du ko puus oto bi normal mais am na benn vis bu dañ madam moom vis bi de du ma jaral du nga bàyyi noonu gis nga vis boobu dañ defaroo ko parce que oto baa ngi dem beneen vis day dañaat ba tey rek oto bi di dem beneen vis dañaat bu yàggee oto bi day gaare wala mu indi problème boo xam ne dootul tàkkati ci àdduna pourtant benn vis buy jar ñaar dërëm la woon nga koy seetaan di ko seetaan ba mu yegg ci jëndaat oto bu bees dama ko misaal ci oto rek de mais fu nekk mën ngeen ko faajal misaal mboolem problème yu am ci sunu dund lu ndaw lay nekk nga naan garaawul garaawul garaawul ba mu xëy tol ni kër tiim la nag mënatoo ci dara looloo ñuy indil jafe-jafe moo tax lu ne asalaamaaleykum dañ ko war a régler léegi daar daar doog a continuer ci leneen yenn saa yi nga gis ku feebar ñu dagg tànkam wala di ngeen koy gis ah bi mu demee hôpital lan la ko docteur yi wax soo teeloon ñëw kii mun na wér mais da ngaa da ngaa négliger sa bopp ba tey jii amatuñu solution lu dul dagg tànk bi gis ngeen léegi nag sunu borom subhanahu wa taala daf ñu indil ay solution yoo xam ne su fekkee ñun ñu ngi ciy jaar ñun jullit yi góor ak jigéen amaana li ñuy bañ ci sunu dund sunu borom subhanahu wa taala dinañu ko teggil buur bi tabaraka wa taala mu ne أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا أو إعراضا فلا جناها عليهما أن يصلحا أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأهدرت الأنفس السح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا sunu borom ne wa in imraatun bu fekkee dafa am benn jigéen ak jigéen bu mu mën a ne walla góoram xaafat dafa ragal moom ndaw si min baaliha ci borom këram nu suusan fay mooy tarfaan aw adamu taa yëkkatiku wala ñàkk topp la jël say bagage wala féetéerlu wala wala wala wala da ngaa ragal loolu yow ndaw si gis nga problème aw iradan wala dummóoyu wan la ginnaaw mere la sunu borom nee na fala junaha alayhima an yusliha kon dey bàkkaar du am ci ñoom ñaar ñooñu ñu daal di toog waxtaan pour yewenal seen diggante naka seet naa na temps yi wératoo ah mënatoo lu baree bari est-ce que doom bàyyi ma takk ñaareel dañu continuer di sëy ndax takk ñaareel kan moom moo gën moo gën nga fase ko mu dem parce que nekk ngeen est-ce que loolu du sulux sulux la kat da ngaa feebar léegi mënatoo dara xam naa loolu est-ce que doo bàyyi ma ut keneen xam nga waxtaan ngeen moo gën nga xëy rek ne ko jël say bagage wala kon condition yi bëri na ci yoo xam ne nit ñi war nañ koy teg ci table ji di ko waxtaan ak seeni soxna wala seeni borom kër parce que tànk bu dagg kat moo gën dee wala nopp bu dagg moo gën dee sëy bu tas bu jëkku gën wala ngay génn kër gi di dem ndax li la bëgg a yóbbu mooy nangam ak nangam te loolu mun nañ ko régler ñu régler ko te nga toog mais bëri na fi problème yoo xamante ne xëy na bu ñu doon waxtaan nit ñi di waxtaan seen biir problème yoon du am suñu borom subhanahu wa taala mu ne su fekkee kenn ci jigéen ñi nee na aaya bi ënd ëmb na ay atte yoo xam ne atte yu maandu la xukman adalan rahiman atte yi yemu ci ne maandu waaye atte yi dañoo am yërmande sunu borom subhanahu wa taala ndax bëggul ànd bi jeex léegi doom yi màgg nañ nekk nga paa ki nekk na meer màgget na ndeysaan li ndaw si waxoon yonente bi alayhi salaatu salaam diw dey sama biir tuurul na ko samay ween daanu na lekk na sama ndaw ba mu jeex tey mu xëy rek ne ma yemale naa la ak sama ndey ah noonu ndaw si di waxee yonent bi foofu la yàlla subhanahu wa taala wàcce jibril muy indi alquran bu bees sax bu jógee kaw asamaan yàlla mu ne qad sami allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila allahi wallahu yasma'u waaw yàllaa ngi yàllaa ngi malawul ala kaw asamaan waaye mi ngi dégg ndaw si mi ngi wax yàlla ne dégg naa ndaw si lu mu wax ndaw saa ngi ñëw ci yow yonent bi di jàmbat borom kër léegi borom kër googu loolu mu wax ndaw si pour situation bi réglé waat foog mu def ñetti mbir pour bàkkaar bu rëy boobu waa ji def foog mu def ko affaire bi jeex bi ci njëkk mooy ah lan mooy njëkk goreel jaam.
ah goreel jaam.
goreel jaam foog mu goreel jaam wala woor ñaari weer.
mu woor ñaari weer yu toppante wala ñu lekkal fukk mu leyal 60 miskin mu jox leen ñu lekk
si lii mënul wax.
waaw su dee mën na ndeysaan xoolal islam nu mu amee yërmande xoolal yàlla bi yonent bi waxee loolu waa ji ay ne man daaw ma dara xaw ma jaam mënumaa woor ñaari weer mënuma ko yéen ne ko ah miskin yi nag mun a awma lu ma leen jox dañ ne kon xaaral daal di dem këram de indi tàndarama bu jalu bu toll noonu mu ne wuy li bay ma ma koy jox kenn man maa ngi ne awma dara sama kër daal di yoon affaire bi yóbbu këram yowet defi ne waa ji moo doy waar waa ji bu bi oy balaa may jox kenn mu lekk ñun maa ngi ne amu dërëm amu lu ma jox kenn amu lu ma lekk may joxe xam man maa ci gën a daal di buub yëf yi yóbbu kër yonent bi ree ba sonn waa ji jël na yëpp yóbbaale jabar ji encore ati maanaam gis nga yàlla yar bu muy def pour yar nit ñi gis ngeen lislaam moo tax diine la woo xam ne aw dundin la lislaam aw dundin la mais tey ñun jullit yi xam ngeen ne dundatul lislaam parce que bu fekkee lii la ñu yàlla wax nañ def kenn du ko def da ngay gis ni dëkk bi ni mel nii nga ñëw fi nga ni ah ndeysaan ñi ñëpp ay jullit lañ ana lislaam te lii nekk ay charte nekk ay atte su xaw su dara xewee lii lañ war a def su ngeen bëggee def dara nii ngeen di def ku def nangam nangam léegi ñun ñoo lépp dañ koy sànni fële kenn di def dara kon noonu la ñuy dundee diine bi lii ñuy wax ni ay atte la fay fayle fay mooy génn sa biir borom kër génn sa kër borom kër wala góor gu gedd jabaram yëpp xam ngeen ne dafa du jeex ci dëkk bi mais xool leen nan lañ koy réglé tey am na ñoo xam ne dañuy bàyyi jigéen un an mu nekk seen kër doo dem doo yónnee doo joxe dund sa yoon sa yoon du ci nekk am ñoo xam sax dañuy fase jigéen bàyyi ko mu yóbbu doom yi sa yoon ba doom yi xëy màgg nekk ay ponkal dugg ci dëkk bi di la wër ñun suñ papa la nuy wër ah xam nga loolu garaaw na ah lan ni yàlla musul ci loolu mbokk yi loolu yëpp li ko waral mooy ñàkk a toppatoo bu ñàkk a toppatoo suñu diine kon yàlla am na yoon yu ñu jaaral yoon yoo xam ne yu maandu la hukman waaye adlan atte yoo xam ne atte yu maandu yu am yërmande yoo xam ne sunu borom jalla wa irshad ak ay orientation orientation yoo xam ne rabbaniya ci yàlla la bàyyee ko xam ngeen ne yàlla du bind yoon daal di rëdd ne jaar leen nii ba pare yoon boobu nit jaar fa fekk fay pakk-pakk yàlla daf ñu orienté orienté yoo xam ne rabbaani ci moom la bàyyee ko yoo xam ne shadid yu jub xocc la yàlla moo ko tëral yàlla moo ko àtte yàlla moo sant moo nu sant ñu jaar ci waaye yàlla xamal ne yoon yooyu yoon yu jub la wa huwa azawj mooy sëy iza tawaqaat min zawjiha nusuusan bu fekkente ne borom kër dafa gis ci jabaram fay ndëngte ak yëkkatiku wala dummóoyu benn borom kër gi gis na ndaw si dafa màgget lu bari mënatu ko ba tax na kër gaa ngi commencé changé léegi ndax waa ji day wàcc rek ne ko yow daal léegi da ngaa màgget fase naa la déedéet nañu waxtaan nañu ubbi benn bunt ñoom ñaar ñu toog li nga mënoon mënatoo ko kat kon bàyyil ma wut keneen teg fi sawet waaye yenn saa yi tamit nga gis jigéen bi bëgg a indi problème ah nga bàyyi fii de ku fi dugg ay yowmal xiyaamati problème day am de te xam nga ne yow nga dem wujj ñëw moo gën nga dem waaye tamit am na problème lan moo tax ndaw si ndax jigéen ñi di bañ sëy ba màgget nga indi keneen lu tax jigéen ñi di ko bañ laaj naa leen pour question bi parce que góor ñi maandu ñu ragaluñu yàlla dañuy indi xale bi rek comme ñaari néeg la woon benn néeg a ngi ni benn néeg bi fi mooy saal bi fi mooy néegu aawa bi mooy néegu ñaaram ñu daal di jël bant daal di daaj ci buntu aawa bi wane ne néeg bi moom dootuma fi duggati léegi fii rek loolu tamit musiba la loolu tamit du diine nit daal nit ñi daal dañu war a ragal yàlla te yonent bi jàngale na de jàngeen ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam même bi mu feebaree dañ ko doon jàppoo muy dugg ci néegu soxna yi buñ ko génnee fi dugal ko fii te feebar na feebar boo xam ne buñ koy génne ci biir néeg yi kii jàpp ci mbagg ndeyjoor kii jàpp ci mbaggu càmmoñ bopp bi day sëgg tànk yi di direeku mu naan leen fan laa aye bi mu demee ba sonn la dajale jigéen ñi ne leen ni niñ may jàppoo dafa metti te ngeen seet fu may nekk rek ba mu wér wala lu yàlla def ñu ne ko Aïcha moo gën a nekk xale xoolal ñooñu tamit seen ragal yàlla parce que xam nañ ne màgget nañ mënuñu ko ñu ne ko Aïcha moo gën a nekk xale nekkal nii ko Aïcha gis ngeen waaye fii parce que nit ñi xamuñu diine góor ñi xamuñu diine jigéen ñi xamuñu diine waaw moo tax ku nekk dañuy jalgati moo tax problème du jeex ci sunu dund sunu sëy yi du ñu mën a sëy sëy normal c'est parce que ku nekk da ngay jalgati lu yàlla wax waaw ay ku takk jabar fii maa ngi doog a dund waaw kon bi démb ci loo nekkoon safara wala nga gis kuy ayee ji fenn maa ngi dem aljanna maa ngi dem kër noflaay maa ngi dem nangam nga koy wax sa jabar di la dégg sangu ba pare naan maa ngi dem aljanna kooku boo ñëwaatee ci kër gi lu muy wax ah da ngaa bëgg dara demal aljanna fii di safara la fii dootul neexati ah problème rek te ñun ñooy lu ëpp góor ñooy taal problème yi wala takk ba pare toog sa saal naan si gars yi takk leen ñaareel man de bi ma amee ñaareel laa doog a dund kon ça veut dire que kii ñaar fukki at yi ngeen nekk yow ci musiba nga nekk góor ñu bari ñooy taal seen kër am na yoo xam ne kenn du ko wax muy génn ci biti saa yoo ko waxee ci sa kanamu jabar yi wane nga da ngaa jéng te yàlla moonu wax ci dars bii di ñëwaat dinañ ko gis walan taadilu walan tastatiu an taadilu bayna nisa walaw xarastum yéen a ngi nii mun leen fexe ba yemale jigéen ñi munu leen ko lu ngeen ko bëgg bëgg bëgg bëgg bëgg yem munu leen ko waaye xam nga lu ñu lay tere nga manifester ko mooy li ma wax léegi waaw nekk sa biir kër nag su ma amee jàmm bu ma reeree ba suur rek fii laa fii laa ñëw waaw xam nga lu muy jur mooy gis nga kii keneen ki saa yu génnee da koy jaay kële loolu lay day manifester dafa ne man lañ gën a bëgg waaw léegi nag su ko defee nooy def xikma ngay def xikma xikma xikma mooy xereñ benn góor dafa am ñeenti jabar mu def système fu mu aayee rek mu ne la gis nga dërëm bi téye ko na nga ko denc dafa am lu dërëm bi di wone mu def ko ñeenti weer ku nekk jox na la dërëm noppi benn bis mu daal di dajale leen ci benn kër def reeram bu neex rek benn jabar ji nag waa nijaay ñun ñeent koo gën a bëgg rek mu ne ki ma joxoon dërëm ba te ku nekk naan ku nekk dafa ne moom la mu ne patt pattaaral jàpp njàmburam ki ma joxoon dërëm ba kan la ñeent am na keneen koo xam ne dañ ko ne sa ñeenti jabar yi bëgguñu la de boo wër na yàlla alal ji lañ bëgg bëgguñu la mu ne da ngeen di wax rek ah gars yi ne ko demal nga tàggu leen nga ne da ngay dee da ngaa bëgg ku la gunge mu ñëw daal di toog rek triste ñeenteel bi ne ko ni jaay lan la mu ne ko man de dañ maa damaa yëg ne damay dee dee mu ne waaw ku la ko wax mu ne maa demoon daal diw moo ma ne damay dee te xam nga ne kooku lu mu wax dëgg la ba léegi nag te sama problème mooy yow laa bëgg nga gunge ma mu ne ah bari xale bu ndaw bii ah te ngaa dee sa dee nga bàyyi ma ma tënji keneen takk ma booy dee nga dee gis nga mu ne ko ah bon ak yow li ma la defal yëpp ak fi ñu jaar mu ne ko ah waaye nag yàlla booy dee nga dee nag xam nga kooku xam na leer na mu ñëw ci ñetteel bi mu ne ko man de damaa yëg ne damay dee mu ne ko léegi nag mu ne ko yow laa bëgg nga gunge mu ne ko ana ñeenteel bi loo am ci moom nga nekk ba pare nga bëgg ma te ngaa dem mu yóbbu la noonu la ko toppee noonu la ko toppee ba jabar yi jeex kon nit dafa war a maandu war a ragal yàlla ci ay soxnaam beneen bi mooy balaa ngay def dara del diisoo ak ñoom di waxtaan am na décision yoo xam ne bul ko jël noonu comme ça rek sànni ko mu daal di taal sa kër daal di yàq kër yi am na kër yu bëri yoo xam ne dañoo tas am na njaboot gu bëri gu alku am na xale yu bëri yu nekk ay bandi am na xale yu jigéen yu bëri yu yàqu kër yu tas yi moo ko waral yenn saa yi sax nit dina bëgg aar njabootam mu muñ ay mettit pour bañ a tas këram mu xam ne kii bu demee day yóbbaale njaboot gi wala wala wala mu daal di mu daal di mu daal di muñ loolu loolu lañ sunu borom subhanahu wa taala di wax ne nañuy négocier loolu la ñuy wax sunu borom subhanahu wa taala jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu mu ne yenn saa yi nga gis ci soxna sax ndeysaan ak màgget aw qillatu jamalia wala sax néew rafetaaya parce que léegi dem na ba boo lee nga koy bàyyi keneen di ko takk mu ne nga négocier ak moom loolu la ni sunu borom di wax ci aaya bi nañu su kenn ci yéen ragalee nu suusan fay aw iraadan wala du mooyu wane ginnaaw gu ànd ak ay coow ay problème fala junaaha alayhima ñoom ñaar amuñu bàkkaar an yusliha ñu yéwénal baynahuma seen diggante sulhan ak yéwénal ñu négocier ndaw si wàcc ci ay yenn àqam yu mu doon coow naan man wujj duma fi fekk naan man nangam ak nangam nangam nangam léegi na wàññi yenn àq yooyu ku góor ki tamit ñoom ñaar ñu mun a daje yàlla nee na wa sulhu xayrun gis nga yéwénal négocier négo- négociation moo gën ci lépp lu mu mën a doon fexe ba négocier négocier say doom négocier ak sa soxna négocier sa ak sa borom kër négociation lu mu la mayul ay kurpeñ du ko indi waaw ay kurpeñ ak ay mbëkk ak ay sone du indi dara du defar kër de kër daal li koy defar mooy waxtaan loolu yàlla wax as-sulh mu ne wa sulhu xayr waaye borom bi nee na wa uxdiratil anfusu suha gis nañ ne daal bakkan daal dafa ngott waaw sama jëkkër duma ko bokk ak kenn est-ce que dégg ngeen aaya bi waaw benn kër kër gi man dong maa fii daagu loolu mooy nit dafa nay li mu am du ko bëgg a bokk ak kenn moo la yàlla ne bakkan dafa nay wa uhdilatil anfus as-suh bakkan yàllaa leen bindee nay li nu am duñ ko bëgg a bokk ak kenn alal la lépp la soxna jëkkër nekk jigéen lu mu mel mel mel boo ko ne ndax bëgg ngaa sa jëkkër keneen ñëw mu ne mukk mukk bu doon moom day dong dong la ba ba muy dem alaxira moom kenn moo fi nekk wax naa leen benn xutba bu passé fii keroog bi yonente bi sibburoo jóge armée li naan waara asa mu fekk Aysa naan waara asa way man sama bopp yonente ne ko bal waara asa man mii sama bopp yonente bi ne Aysa donc yonente bi mu ngi koy bëgg a fàtteloo métit bi ko dal ak moom it génn àdduna gu mu war a faatu yonent bi ne Aysa xanaa bëggoo ma mujj la ginnaaw boo faatoo ma sang la sang la jullee la suul la ñaanal la sama borom Aysa ne ko bëgguma de xam naa li nga bëgg rek mooy ma dee nga takk keneen indi ko sama néeg bëgguma voilà loolu doo nga bëgg céetal beneen jigéen sama néeg ah gis nga amul benn jigéen bu bëgg a wujj loolu bakkan yi la yàlla bindee noonu ngott joxe alal ci la bokk maanaam nit moo bëggut a bokk dara bokk même doomu baay sax de da ngay gis problème da ci am doomu baay bi waxuma loolu sax waaye jëkkër ji waxuma loolu sax waaye jabar yi kan ci ñun fi moo bëgg bokk ak sa jëkkër sa jabar keneen kooku moom douze coups la wala ah wala ñu cor la jaasi ah mu ngoog kon nit la yàlla bindee bugut a bokk dara yàlla la moo tax yàlla nañu wa uhdiratil anfusu suha bakkan yàlla leen bindee nay waaye nga bokk sa jëkkër moo gën sëy bi tas bu fekkee bu takkul keneen dalay fase nga bàyyi ko mu takk keneen yàlla mu ne wa in tuhsinu ngeen rafetal moo gën de waaw rafetal leen rafetal leen nekkin gi rafetal leen sëy bi rafetal leen seen diggante yàlla mu ne wa tattaqu ngeen moytu loolu tamit moo gën wallahi rafetal moytu sëy bu tas moytu problème moytu ay jafe-jafe rafetal ko ba mu rafet loolu moo gën xoolal ñaari baat yi ni ñu ni ñu taqaloo ak ni ñu rafetee wa in tuxsinu wa tattaqu su ngeen rafetalee moytu loolu day gën lu mu mun a doon sunu borom ne fa inna allaha naka yàlla na ngeen yëg ne kaana mustadeñ xabiiran di xam bi ma taamaluna li ngeen di def parce que sëy la parce que biirum néeg la mooy yàlla ne loo fa def xam naa ko waaw wallahi alquran ku gëmul ne waxu yàlla rek alku nga gis nga aaya yi ni ñuy jeexee ngay yëg ci fin wu aaya yi yàlla di la dugal baat yoo xamante ne lii dong moo fi mën a nekk parce que mbii lii secret la sëy la ci biir néeg la kenn du ko xam dafa sew ñoom ñaar rek ñoo fa nekk yàlla nee na xam naa ko de bima taamaluna xabiir xam naa la fa nekk ci biir néeg boobu foofu ngeen simmiku nekk ci biir mbaaj boobu yéen ñaar cundum tëj néeg bi da ne xam naa lu fa nekk inna bima taamaluna xabir gis nga bu nekkoon ci mbirum xam-xam da ngay dégg mu ne fa innahu bima taamaluna alim bu fekkee ci biti la mu ne fa innahu bima taamaluna basir loolu laa yàlla di toppee aaya yi bu dee lu ñuy gis la mu ne la maa gis naa ko bu dee lu ñuy xam la mu ne la xam naa ko bu dee lu ñuy deñ kumpa la mu ne la xabiir xam naa la ci biir dara nëbbuwuma moo tax sayid xawa rahimahullah mu ne bu ngeen jàngee alxuraan na ngeen bàyyi xel aaya yi fu muy jeexee borom bi nee na fa inna allaha yàlla kaana mustadeñ xabiiran di xam di deñ kumpa bi ma taamaluna ci li ngeen di def borom xam-xam yi olof yi dañuy wax ne deñ kumpa kenn dong moo ko def deñ kumpa léeg-léeg nga dégg ñu ne doomu aadama diw dafa deñ kumpa déedéet dañ koo tuumaal kenn dong moo deñ kumpa mooy yàlla amma doomu aadama dafa bañ kumpa lan mooy différence su deñ kumpa ak bañ kumpa luy différence bi hmm? luy différence su bañ kumpa ak deñ kumpa nga xamul bëgg xam.
ah kii dafa ki bañ kumpa dafa xamul bëgg xam.
saa yu déggee tël lu muy def kii dafa xamul bëgg day dem seeti loolu lu mu parce que dafa bañ affaire bi ëmb ko waaye ki xam foofu lu fa xew kooku dañ na ci kumpa gi bu déggee foofu dara am ndax day dem boobu nag mooy yàlla yàlla dafa dañ kumpa doomu aadama moom dafa bañ lu ko ump yàlla moom xam na lépp lu am moo tax mu ne lépp lu ngeen def yàlla xabiir la ku ci dañ kumpa la xam na ko ba pare xam na ne lii ngay wax dëgg la xam na ne du dëgg xam na lii nga programmé dëgg la wala du dëgg xam nga lii ngay nas ak soxna si di wax dëgg la wala du dëgg xam na lii nga programmé ak sa borom kër dëgg la wala du dëgg kon yàlla amul lu ko ci lu ko ci lu ko ci ump kon mbokki julli di lii mooy sunu dars tey ñu ngi ñaan buur yàlla tabaraka wa taala jalla jalaalu mu jéggal ñu njuumte yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu fekkee am na insha allah ay question bi